مصطفى إذ جاء يمطار alhamdulilah rabbil alamin eh, Souleymane Ly wax naa leen ko léegi jarbaatu Cerno Yaxya Ly la ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara waaw kon dinaa ko jox le 22 waaw kañ le 22 bu baax di nuyu ñi ma fi gis ci waa cité bi Isaaxa si tabaarakallah ak kilifa yi fi ne yépp ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di ñaan yàlla ci mbaaxam yal nañu yàlla dolli sutura daa iman yal nañu yàlla dolli sutura daa iman yal nañu yàlla dolli sutura daa iman te nii ñu dëgmalee bésu àjjuma bii di ñëw yal na ñëwaat déwén fekk ñu fi ak suñu gàmmuk bopp gi le 31 décembre loolu danañ ko waxaat ci diggante bi am na gàmmu Malick Diop Thiès le 28 décembre incha allah après ziare wakaam bi rek moo ci topp bu boobaa it place de promenade de Thiès lañ koy defee man mii maa ko tànn foofa pour ñu defee ko fa le 28 décembre Malick Diop yéen ñëpp xam ngeen ko fii lay ñëw ci ñun ah ñun la def kilifa ñu nangu ko tabaarakallah moom le 28 la promenade de Thiès ñëpp xam nañ ko waaw kon malaaka yi cell tax ki gën a taq ci kaw suuf nag moo gënal yàlla jibril ndax jibril ngéeju na nekk kooku te mënu koo nekk moo wax yonent bi ne ko géeju woon naa bokk ci sa xeet mu ne ko lu tax mu ne ko ndax ñaari rakkay fajar joxe ko jaral na ma ko ñaari rakkay fajar mu ne ko joxe ko jaral na ma ko génn ci kooru malaaka ak li ma yàlla jox yépp bokk ci sa xeet bi ndax bi ma gisee may wi ci nekk yonent bi ne ko ak ban mu ne ko ñaari mbokk yu tas ma dox defar ko bañ àndaat jaral na ko mu ne ko ak ban am na bu du tudd mu ne ko ak ko am bor ma fayal ko ko ku am bor ma fayal ko ko yooyu yiw la de yiw la yoo xam ne kenn xamut nu mu toll Suleymaan li ngi lay ziar bu baax jër baatu com ne yaxyaa li la léegi rek jumaa ji ma jullee mariste loolu la imaam bi xutba daawatu mazlum moom la doon xutba moytu leen ñaanu koñ tooñ mustajaabun la yonent bi wax ne ne yàlla da koy nangu laaj borom loo bëgg mu defal ko ko tooñ baaxut tooñ du laaj tooñ baaxut tooñ du laaj tooñ baaxut tooñ du gàllaaj gàllaaj goo mën a am boo tooñee toj na fit dëgg fit piir mooy tegu ci dëgg ker boo teguwul ci dëgg rek amatoo fit ndax yoon ay dal ci sa kaw te yoon kum dal ci sa kaw amatoo fit boo nekkee ci dëgg rek nag ci nga am fit waxtu woo wàccee dëgg rek amatoo fit kon nañ tegu ci dëgg ila siratin mustaqim loolu lañ ñu ngi koy ñaan ñëpp te yaakaar naa fii ku fi ñëw xam nga ndax man ñépp laa yemale walla yemalewuma ñépp ak fum mën a doon ci senegal maa ngi ñaan yàlla nag loolu sax te du du deñ mukk waaye waaye loo xam-xam demba demba gën laa xam boppam lii rekk la nañu góorgóorlu nañu bëggante ngir yàlla nañu amante orma kenn ku nekk na yëg ni sa morom mooy sa seetu ku taxaw ci sa kanamu seetu sa bopp rek ngay gis waaye nag yàlla tànn ci biir mbindeefam yi ña ko neex yal nañu yàlla boole ci ña ko neex nañu yàlla boole ci ña ko neex yal nañu yàlla boole ci ña ko neex àddina bi neex na ba dee ñun ñoo ko naqaril rek àddina bi neex na ba dee ñun ñoo ko naqaril dara naqariwu fi lépp a neex ku ko naqaril rek mu naqari waaye lépp neex buñ seetee dund gii ñuy dund suñ bàyyi amuñ ko woon suñ bàyyi seen maam yi amuñ ko woon nooy dàqee rek muy gën a sori moo tax Cheikhul Xaaji Malik Alhaji Abdou Aziz nee na daf daan buñ naan àddina jamono neexul mu ne kañ la mos a neex bañ daan rey yonent yi mu ne kañ mosul neex mosul neex mosul neex waaye ku ko suukar rek mu neex mooy loo am doyloo ko loo am doyloo ko lu waay am yéene ko ko te sàkku ji ndax kiy joxe mooy joxe te boo sàkkoo ànd ak sabablu mën na koo teg ci sa loxo waaye yàcc yàccaaral rek ne yasar moo baaxut kenn ku ne na am lu muy yëngu rek alxarakatu baraka ku yëngu rek am barke ku yëngu rek am barke bu kenn sàggan bu kenn sàggan bu kenn sàggan ñu ngi wax fan yi yëpp naan Sénégal dañ reculer ñaari pas le plus pauvre du monde Sénégal moo doon vingt sixième léegi mooy vingt troisième xam nga vingt quatrième dañ gën a dellu ginnaaw lu tax askan wi liggéey yu nanguwuy ñu liggéey loolu rek la de du président président na xëy na am na ci tuuti waar waaye population bi la de population bi la ndax gëmuñu liggéey ana xalifa eh, karo waaw kañ moo karo le fii léegi laa koy wax ne dimbale ma ba ma ñibbisee ba tey la may liggéeylu koo sant ku ki ma seexu indil ana seexu sàll ak Alioune Dieng waaw yéen de maa ngi leen di sant ki ngeen ma indil de baax na lool waaye ñi des bon nañ lool doo ci sant kenn koo ci fay nag moom pare nga boo koy woo sax mu fay téléphone nga ne avec ça di nga am barke gëmuñu liggéey ouvrier boo ci fay ñàkk nga loolu Sénégal rek la am ma ne li may wax ñun ñëpp a ko dégg ouvrier boo fay néew na nag parce que buñ ne ñëpp du ñëpp tey buñ noon xadara ba ñëpp a fa teew du dëgg ñëpp teewuñ fi waaye waxin la néew na tey ouvrier booy jox mu liggéeyal la ba mu jeex te sa xol jeexul te warul mën a nekk ndax boo demee Europe amu fa li nga signé nit ki loolu loolu la lay defal ba mu ne coc wa illaa boo ñëwee gis lu ca meng sax danga ko naan lii bokk ci woon tojal mu defaat te doo ko fay dërëm fii nag dangay ngay fay nit ba pare toppaat ci koom yaa koy woo téléphone yaa koy neexal yaa koy nangam te boo reppee ba fay ko yépp dootoo ko gis avec sa ñu ne avancement réew mi dana am du am ndax sénégalais gëmut liggéey tappale la gëm fokk ñu mbir mi fokk ñu koy waxante nañu liggéey nañu nangoo liggéey nañ gëm liggéey i'malu wa qul i'malu fa sa yara allahu amalakum wa rasuluhu wal muminuuna wa sa turadduuna ila alimi alxaybi wa shahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum taamaluun africain ci boppam moo gëmut liggéey maa ngi koy wax barki démb ñu baal ma àq nag ma ne ñun Afrique war nañu seet luñ def yàlla ba continent yépp ñoo ci gën a tardé dëgg la wala du dëgg man li may wax c'est vérifiable les cinq continents Afrique ci gën a dellu ginnaaw moo ci gën a dépendant c'est pas normal te teraanga yi yàlla am yépp a ngi Afrique mu ngi ci suufus Afrique bu dee pétrole gaz phosphate uranium boksik ak yëpp maa ngi koy déglu wax naa leen ko fii prêtre boobu daf ma yëm congolais la RDC bi président bu bees bii falo may seetaan investissement am biñ koy teg ci pouvoir bi préserment am benn prêtre wax wax bu am solo mu ne yàlla bu doon jaaxle dégg leen wax bi de kon yàlla du jaaxle dafa ne yàlla bu doon jaaxle dina jaaxle ci population wu RDC ndax li mu am ci teraanga yépp jox na leen ko te ñoo gën a pauvre ci monde bi billahi wax boobu nim ma intéressé te muy dëgg bu wér peng Congo RDC li fa ne newul fenn ci àddina bi amul fenn ci àddina bi bépp su boo xalaat ci kaw suuf mu nga fa te ñoo gën a pauvre ci àddina bi yàlla bu mu ñu dab nag ah ñun dey li gën a baax yépp am nañ ko am nañ mag ñu baax wa jaal na rawaasiya wa jaal na fil ardi rawaasiya bu ko firee ay doj mooy ay nitu yàlla am nañ ko bem doy ay nitu yàlla ba mu doy sëkk wa naa fi l ardi rawaasiya an tamida bikum montagne mu ni ci dara nitu yàlla la yàlla daf ko jël misaale ko montagne doole ji montagne am la nitu yàlla am bu ko ëpp wa naa fi l ardi rawaasiya nitu yàlla yi yàlla sànni ci kaw suy suuf fii ci senegal ñi koy dëgëralee suuf si amul fenn ci àddina kon am nañ ay awtaat hmm? ay awtaat am nañu ko wa jaal naa fiha anhaaran feeñ na fi du jeex fim mu ne pétrole baa ngi nii ñuy wax phosphate baa nga ne la ñu yàgg koo gas bauxite baa ngi nee ñu koy gas phosphate ba ca maatam a nga ne la feeñaat fer baa nga ne la feeñ ah jicon yépp a ngi nii feeñ waaye ay buñ ñu amul taxawaay duñ ko jëriñoo taxawaay bi nag mooy changer mentalité yi nangoo liggéey jeex na amul leneen changer mentalité yi nangoo liggéey waaye wañaan waañaanu rek waañaanu rek mooy tayal mën a tappale sénégalais ni mu mënee tappale doomu aadama mënu ko mbay jum anamu mu nga na léegi xam na li may wax gis nga ñi ñuy jël ñuy bale mbedd mi sax buñ koy bale dañuy mel ni néew yuy bale néew comme néew yuy bale nii lañuy bale <laughs> dama leen di romb dama naan ñoo ñoo ñii te ñu ut yar won leen ni nii kenn du ko bale loolu fii rek la am da ngeen di génn Sénégal tuuti ngeen xool mais tubaab yi boo demee ci ñoom 4 heures du matin la ñuy liggéey presque balaa bër di set ñu nettoyé dëkk bi ba raxas ko raxas laa wax de raxas seen oto yi baal ma imaam raxas raxas laa wax de raxas tali bi raxas tali yépp dañ koy raxas ñun ñu ne ñu te dañ lay fay mbay ju may seen chef di mu nga na le toog waaye yow mbay te est-ce que def nga sa liggéey sax yow parce que man ñooñu bu ma leen gisee toujours dama naan mbay jum est-ce que mu ngi leen di surveiller loo war a bare 30 minutes nga nga nekk fa 2 heures de temps te fi nga leen romb nga leen di rombaat waaye li may wax dëgg la walla du dëgg fi nga leen romboon même point nga leen di rombaat même nañ doon def noonu la ñuy def service yëpp service boo ci dem ñu nga am baraada ak kaas man li may wax dafa exister Sénégal du dem parce que gëmuñu liggéey du dem Sénégal du dem gëmuñu liggéey gëmuñu ko barki rasulullahi li may wax ñun ñëpp koy dund service boo ci dugg lay sa àq nga war a caa jot doo ca jot danañ la dawloo maaj loola comme maro wa te sa àq la yaa ko moom da nga ko war a jot avec ça ñu ne Sénégal dana avancer di rey suñ bopp ci président Macky Sall les ministres mais niñ mel lañ mel buñ bëggee euh, gouvernement bi changer ñun nañu changé par la force gouvernement bi day changé kama takunu tawalla aleykum loolu la rasulullahi wax sallallahu nee na ni ngeen mel njiit yu mel noonu laa leen fiy tegal kama takunu walla aleykum ñun nag lu ne ñu jooy ko état bi dëgg la man du ma politicien lu ma kenn waaye liy defar réew mi am naa ci àq te xëy na bu ma waxee ñaar ak ñett dinañ dégg man li may wax ñun ñëpp a koy dund loo fiy liggéeylu am nga soxla billaay di nga jooy xàcc te yaa moom sa alal di fay di nga yéeg police porter plainte lu ne da nga ca dugg pour lañ la doon defal jaar yoon nga dem ci état bi nag këyit goo soxla li ma wax léegi muy sa àq ñu war ko teg ci sa loxo ba ci bulletin de naissance nga war a dem léegi ñu defaral la ko léegi nga dem sa yoon demal ba suba ka fa fekk mu ngay émaillé loo soxla woon niñ lay accueillir sax mooy njëkk a bon soxol ci yi dafa am solo nit la muy ut si ci yow ubbil ko sa kanam te li may wax ñun ñëpp a koy dund tubaab yi foo ci dugg këyit boo soxla chef ba mooy jóg kes ce que tu veux quest nga ne ko nangam mu ne la service ba lay koy def gunge la ba ci bunt bi fëgg nga ubbi mu ne la voilà nga ñëw kooku jóg taxaw nuyu la loo soxla nga wax ko mu yëkkati ko teg ko ci solo loxo ne la merci beaucoup accompagner la ba ci bunt bi ne la merci beaucoup te yaa ko waroon a wax merci man li may wax ay réalité la nga dem hôpital yóbbu sa malade foofu nag moom fa la catastrophe amee bu malade bi amoon benn feebar fukk lay indi lay fekk foofu fukk yàlla bu mu di urgence na damay wax toujours xale yi ne leen boo gisee hôpital xamuñu urgence urgence ci ñun la toujours dama koy wax ñi léeg-léeg dañ leen di jël la jël huit neel dama ko soxla urgent ñoom miin nañ ko léegi dama leen ne bu leen ma paasati benn téléphone buy urgent ku la ci ne urgent la rek bu la boo ko jotee daanaka pes nga koy bëgg lam lay wax dara du ca am fayda daara daara daara man kat dama laa namoon te gi laa gis kañ nga may jox rendez-vous loolu urgence la moo tax koo ci yóbbu urgence mu dee parce que xamuñu luy urgence hôpital boo ci dem gedd luy docteur balaa ngaa gis médecin bi rek problème la balaa ngay gis médecin bi rek problème la soo ko gisee doo fa jëlee lu la neex te boo ko gisee tey balaa nga koo gisati moog malaakaayam yàlla xam te jamais ñu informer seen malade duñ la wax mukk lu la dal demal tey ping pong pi pi pi pong pong ba ñu ne réew mi dana avancé ñu ne Afrique dana avancé fu Afrique di avancé doomu Afrique yi gëmuñu liggéey changé wuñ seen mentalité yëg ne réew mi ñoo ko Afrique ñoo ko mën a changé suñ bopp Sénégal ñoo ko mën a soppil suñ bopp barki balaa may dem nii dafa am ku ma jiit lanteel mu mu jënd lim jënd de <laughs> maa ngi koy wax Aliou Aliou Gueye ma ne ko xoolal bi mu jëndee lim jënd xolli ko ba pare ne ko sànni xër ci kaw tali bi ma ne ko te gis nga tey bu ma ko daboon ne ko saawaay li nga sànni saaga ndey wam ma cay tegal yàlla rek a xam nu ma koy fajee mu ngi ci biir oto waaye téye li nga li nga li nga war a sànni téye ko ba wàcc civisme sax jànguñu ko te lii sax boo koy waxta am na ñu muy naqari boo koy wax am na ñu muy naqari mais ña muy naqari dafa fekk xanaa ñoo koy def su ma nee médecins yi du médecins yëpp mais médecins yi ëpp ci médecins yi la sage-femme yi ëpp ci sage-femme yi jigéen ñi xam nañ li may wax jigéen ñi xam nañ li may wax hmm? amul benn service nag boobu bu ma bàyyi nga ñëw kër sëriñ si xam naa dañ naan état bi lay dal nga ñëw nag kër sëriñ si bëgga la gis sëriñ bi acca bëkk néeg bi boo tooyalut buntu mbuus di nga fa yàgg bëkk néeg bi moom boo tooyalul buntu mbuus ñetti fan di nga am ci kër sëriñ bi doo ko gis waaye génneel junni rek ne ko saa waay sëriñ bi laa soxla woon buntu gannaaw lañ lay jaarale am na wala am waaw man li may wax yépp laa gis yépp laa gis moo tax ma koy wax boo amee junni moom di nga gaaw a gis sëriñ bi du sëriñ sa nag bëkk néeg yi la waaye sëriñ sëpp mënoon nañoo ñàkk bëkk néeg nag waaw yooyu sax duma ci dugg ndax li ma waxoon rek laay bañati ñu ŋawti ŋawtee weetee ma fi waaye ñëpp xamante nañ ci Sénégal lañ dëkk mentalité yi nañ ko soppi ngir yàlla lii di ñëw ñu mën ko jëriñu muy pétrole bi pétrole bi yegg seegul sax pétrole bi xet gi rey nañu ñun siitu petarol toqagut ñun xet gi rek rey nañu pétrole guddi pétrole bëccëg pétrole suba pétrole ngoon te yow pétrole bi bu ñu la ko joxoon doo ca mën dara dara nga ci dut man te nga déglu ña ca am xam-xam ña am xam-xam ñu boole ci ragal yàlla seet ne lu askan wi bokk la ñu fas yéene jëriñoo ko pour askan wi yëpp jëriñoo ko waxoon naa ko fi benn politicien ma ne ko na ngeen fexe ngeen roy tubaab yi boog gannaaw yéen lépp tubaab yi la ngeen roy tubaab yi ci ni ñuy doxalee seen réew ngeen doxalee ko suñu réew mi ma ne ko ñett yi ku ko réussir ku ko réussirut ci réew loo bëgg ca réew ma du dëkk te maa ngi koy waxaat ba gis ku ko dindi ñett yii billaahi feeg reglewuñ ko ci réew mi luñ bëgg regle réglé du réglé man maa la ko wax feeg reglewuñ ko feeg état rek état bu ko président bu ko njëkk regle nii ma ko waxee bu ko neexee président bu ko njëkk regle bu ko neexee su su wàccee mën na jël piliaan teg ko digg Sandaga woo Mansour Guèye mu di ko attaayal te kenn du ko laal li may wax nag xam naa ko de te président bu ma ci wowoon dinaa ko wax fi muy jaar soxlawuma dërëmam nag dinaa ko wax muy jaar ba loolu am parce que suñu njëriñ la soxlawuma ca fay ndax maa ngi am xaalis soxlawuma ca oto ndax am naa bu ma war soxlawuma ca kër ndax am naa fu ma dëkk te mënumaa may jabar jabar yi ma am doy na ma waaye lillaahi tax ma di ko ñett yooyu xam nga mooy yan ba ca jiitu mooy éducation njàngale mi ku ko regle bem baax bu njëkk seetlu leen li may wax bu njëkk ku yóbbuwaan sa doom école privée gàcce la ci sa doom dëgg la wala du dëgg mooy mën a école publique bi rejeté na ko amatul fu mu jàngee nilaar la nga fayal ko privé pour mu mën a jàng bu njëkk loolu la woon ne bu njëkk loolu la woon sa doom buy dem privé rek gàcce la ci moom parce que dañ koo dàq mënatul jàng xamut dara nga fayal ko privé pour mu mën a jàng léegi contraire bi la pour sa doom jàng njàng ma war na ko yóbbu école privée feek loolu inversé wuñ ko rek du baax nañ defar école publique bi defar université yi président bu ko njëkk a réussir réussir nga àddina te mën na nekk man miy wax ak yow rek xam naa yoon wi waxuma la ak ñoom ndax réew bu amul njàng réew ma du dox ak luñ mën a wax na réew bu ñu jàngut réew ma du dox moo tax xam-xam moo jiitu yonent bi li muy baax baax ba ko yàlla di yónni daf ko ni iqra te am na ñeent fukki at waxu ko demal waxal ma nit ñi dara daf ko ne jàngal ba noppi te boobu am na 40 ans iqra waaye ku ci jàng ci ñun bul jàng ngir place wala diplôme bismi rabbika jàngal ngir yàlla ngir am xam-xam waaye bul jàng ngir am place wala diplôme bu diplôme ba ñëwee moom nga bëggoon bu palaas ba ñëwee ndollent la waaye bismi rabbika moo tax yàlla ne yonent bi iqra bismi rabbika bañ mu jaawale yëf yi moo tax njàng mooy bi njëkk xam nga bi ci topp ban la justice justice justice fexe ba ki yeewoo ci palais de la république ak ka nekk ca Malem Hodar yem même point d'égalité ci loi bi ma jëlee ko ci benn ñaar la Seydina Aboubacar waxoon keroog bi yonent bi génnee àddina ñu teg ko fi mu ne wulliitukum waaye wallastu bi ko maa leen jiite waaye gëm gënuma leen yàlla ma fi teg su ngeen gisee may doxalee nu yonant bi daawul doxalee wax leen ma ko ñu ne ko baax na mu dem deux ans après Seydina Omar toog wax la Seydina Aboubacar waxoon ne maa ngi leen di ñaan ku gis ci yéen lu ma war a jubbantee te jubbanti wuuma ëllëg ci kanamu yàlla wàccoo naa ak yéen yéen la ko yàlla di laaj benn sàmmkati gëlëm bu toogoon ca mbooloo ma moo jóg taxaw ak jaaseem ak yetam ne ko yaa amiral muminina mu teen xool ko ne ko labbayka mu ne ko géñ naa ci yàlla mi nga xam ne moo ma bind buñ gisee ngay def lu rasulullaay daawul def ñu gis la ngay def lu Seydina Aboubacar daawul def ñun ñooy bocc ci suñ jaasi yi di ko jëflanteeg yow xatta tafi a ila amrillahi ba nga dellusiwaat ci li neex yàlla wala ñu rey la Seydina Omar jóg taxaw ne maa ngi sant yàlla bi yàlla defee ci mbooloo mi koo xam ne su ma dëngoon tey mu jubbanti ma kooku gisul boppam maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo def ci mbooloo mi tey su ma dëngoon mu jubbanti ma dëgg la wala du dëgg waaw kañ amadike ñaar Seydina Omar benn tey ba mu trois ans fekk Suaybu saxaaba la bu ñuy wax su Suaybu euh, perse la woon demoon seeti seen waa dëkk ñu samp Seydina Omar gannaaw mu ñibbisi ne Seydi Seydina Omar woo ko ci kanamu mbooloo mi nit ñi ñépp toogee mu ne ko Suayb mu ne ko la labbayk mu ne ko yow de bi may nekk xalifa nekkoo fi woon waaye fa nga ne woon xëy na ñàkkul dégg nga écho xilaafa gi ba ma ci nekkee ba tey ndax yëg nga fi lu ma def lu juunu wala lu dëppoowul ak li yonent bi daan def mu ne patt rek mu waxaat ko ko mu ne patt ba muy ñetti yoon mu ne patt Seydina Omar nag ne ko su fekkee ne da nga am loo ci xam ne patt ba ëllëg yaag yàlla waaye du yaag man wàcc naa rek mu jóg taxaw ne ko comme dugal nga ci yàlla nag tey ma tontu la Seydina Omar ne ko bismillah waxal mu ne ko Seydina Omar ku beew nga <laughs> seetal loolu loolu ku ko wax suñ kilifa yi ñu fel sa gémmiñ mu ne ko Seydina Omar mu ne ko la béyka yaa Suayb mu ne ko ku bew nga mu ne ko dama dégg ne léegi ñaari mbubb nga am dama dégg ne ñaari repas ngay lekk par jour te bi rasulullah di dund ñeme ko woon ñun ñëpp benn mbubb lañu amoon fekk xottee ko wut doo jënd ñun ñëpp benn repas lañ daan lekk par jour ndax yonent bi moo ne wa inna fi ak lu mar marratayni fil yawm bokk na ci yàq lekk ñaari yoon ci bis bi te dégg naa léegi ñaari repas nga am mu ne ko wallahi wax nga dëgg njaboot rek a ma ci dugal dal di ne diw mu ne ah, mu ne ko demal indil ma sama menn mbubb ma mu indi ko mu jox ko ne ko boo génnee saraxe ko ku ko la neex sarax ko ku la neex ma dese bii wax nga dëgg ci saasi mu ne ko repas yooyu tamit bés ni tey benn bi dakk na benn rek laay samp nañ ko doon defee ci jamono yonent bi ne ko lii nag boo ko deewaale woon laa gi yaa ngi yàlla de waaye du yaag Omar loolu gaaf la ñun ñuy lekk añ reer ndikki njogal lu mbëstan ah te loolu du gaaf ji yow ñaata mbubb nga am Bachir man mii di wax ak yéen ñaata mbubb laa am imam nag Haji Badara nag ah Mamadou sekk nag Sow Jàllaabe Ceerno Ba jigéen ñi moom waxe noppi foofu la gaal gi safaanoo moom jigéen boo ci ubbi armoire mu nga fees del macha allah xam naa catuwuma leen jigéen bu ci xëy day xool ban laa war a sol tey mën na am cinq minutes du xool bu mu war a sol mbewte la mbew la ci xeeti mbew yi bi jigéen ñi am na wala amul Adja Khady Fall ma ne bu xëyee war a dem xew géñ naa ci yàlla ne mën na am ñaari minute ci armoilam bi di xool tey ban laa war a sol ajaa seexu ka moom waxe noppi waaw buñ demee nag ba àddina bi xoolal li ñu rapproché naa Omar ñaari mbubb ak ñaari lekk mu ne ko ku bew nga kon ñun xanaa alku nañ xanaa kon ñun alku nañ imam boobooy ñaareeli point bi justice fokk justice bi ñu jubbanti ko te ñu xool européens yi du ñoom la ñuy suñ lépp ñoo ko yor xool leen ñoom ni ñuy doxale amul ministre amul président Sarkozy ngi ni bër bu set ñu woo ko tribunal ñun fii député rek ñeme woo ko woo tribunal waxit la xanaa député bu def lu ne weng DG e rek ñeme woo ko woo tribunal DG kese directeur général ñeme woo ko woo tribunal xoola Sarkozy xoolal yal na ko euh, Mitterrand xoolal euh, kii ni ñu koy waxeeti Chirac ña gën a bon yàllaa ko wax de man waxuma ko yahud yële yàlla nee na ñoo gën a bon man waxuma ko ashadu kufran wa nifaqan wa ajdaru ñoo yàlla ko man waxuma ko xoolal seen premier ministre bi ñaata yoon lañ ko convoqué justice ba léegi rëccagul Benyamin Netanyahu ba léegi rëccagul mu ngi bàgganti justice ñun fii wax benn ministre ñeme woo ko woo justice waxuma la combaxtal ga nag moom waxuma la président président moom xel xel xel xel fukki xel xalaatu ko justice bi fokk ñu defar ko boobu mooy ñaareel ñetteel bi mooy santé santé santé santé wér-gu-yaram defar hôpital yi ñu am hôpitaux yu baax kuy faju balaañ laa laaj xaalis faj na ba noppi état xam na source yu muy def ba nga fay ko xaalisam état ku mbëgg nga fay ko di nga ko fay maa la ko wax état ku mu bëgg nga fay ko di ko fay ci nii wala ci nele ci nii walla ci naa rek état kenn mënu ko rëcc moo tax bu ma gisee fii kuy jéem a def face état loolu ak ndof la état doole yàlla la al muluku aswaatullahi fil ard ñaari prix la am al buur yi bu fekkee aswaatullahi fil ard nga wax bala neexee nga ne ñooy yaru yàlla ci kaw suuf te mooy dëgg wala ñooy kàddu yàlla ci kaw suuf bii bi siini bii bi saadi bii firi sawtu kàddu bale bii firi sawtu yar bu la ci neex nga firi ko te ñaar yëpp valable na al mbuur guur yi buur yi aswaatullaahi ñooy yaru yàlla fil ardi ci kaw suuf al muluku nguur aswaatullaahi ñooy kàddu yàlla fil ardi ci kaw suuf ndax buur fa kàddoom joti yow sa kàddu joti fa buur rek moo ne tey moo mën a wax baar yépp nañ ko tëj dëgg la na fi ab xalifa taxaw benn sëriñ mënu ko benn sëriñ lu mu am am doole mënul taxaw ne baar yépp nañ leen tëj jantub tey kenn du tëj baaram ñéppay naan bene tat maa la ko wax président rek la yàlla dënk tey doole mu ne bu benn baar ubbi tey ndax dafa am lu ñuy vérifier baar yëpp ay tëj wala wa illa baar bu ubbi gendarme taxaw fa wala policier na la tëjal te ñooñu moom fu ñu taxaw nga def li ñu wax ñooñu moom gaa yi ragaluñ yàlla waaye ragal nañ leen moom kon nguur yàlla doole yàlla la yàlla xare ci dooleem jox ko moo tax kenn du ko def faas buur kenn du ko def faas da nga koy tefesu lu mu gëq nga jël di wax du tee nag nga wax ko dëgg bu demee ba wéet dina xam ne wax nga ma dëgg waaye bu mu ànd ak forcé laa jàpp du daan na wax ne ku dem di wax ak bu nañ tànn ñi ëpp orma gën a wax mën a waxante kilifa ñu yebal leen ñu wax ak ñoom kon suñu bëggee soppeeku suñu àddina neex suñu àllaaxira neex nañu liggéey ñor na ma de dama xam ne liggéey yor réew laa yor sa kurus laaj ci laaj ngi ci ngiñum ngiñum ngiñum ciim baax na kurus du jur doom du indi xaalis ah, waaw kurus kurus bu fi jur doom gis ngeen <laughs> baax na buy indi xaalis yit anam ba mu koy indee yow danga nga foo xam ne dootoo ko bëgg mag ñi ko amoon ñëpp jëriñoo wuñ ko soxla wuñ ko sax mag ñëpp ko amoon nag loola moom nga léeg-léeg nga dégg sëriñ si di la ko ñenn lasaraankat yi di la ko naxee te ka la koy naxee kat dépense su tey amagu ko naan la niñ koy waxeeti kimia u wala tabdil ñu baal ma ci waxin wi sëñ Maodo sàll bu ndar mu ngi dund ku baax la baayam ak sëñ Abbas Sall ñoo bokk ndey ak baay sama xarit la moo ma daan wax ne mu góor ga daal na ko wax ne tabdil de weddiwu ma am na waaye tëb duul gën a gaaw tabdil de weddiwu ma ne am na de doom waaye tëb duul am na de ah ndax liñ lay wax ne tabdil la billaay balaa nga cay jot say baqate ne bàcc ci biti te doo ca jot sax foofu doo ci jot kimyaa u am na waaye du yi ñuy wax ni kala naan am naa kimyaa u saada <laughs> barki rasulullahi amul dépense su suba kimyaa u saada newul ci kurus dangay ngay jaamu yàlla ba yàlla wan la boppam loo bëgg mu def loolu kimyaa u saada loo bëgg mu def yàlla fekk si la ci say namm-namm loolu jaamu yàllaa koy maye waxuma ne tur yooyu tur yooyu amut de am na waaye boo ci jëriñoo tey doo ci jëriñoo ëllëg ndax du pour toujours waaw loolu taxul ñu jóg dama bëgg ñun ñëpp ñu nekk nit rek nit nit yem ci jaamu yàlla yem ci tariqa bi bañ a ëppal loo dégg ay kimya saada ak ay tabdiil ak yooyu yëpp am na de waaye du niñ koy waxee de yaakaar naa ne sëriñ si ne am nañ ko yëpp nekk ci ndakaaru gii buñ ko utiliser woon biyee yaa ngi naaw dëgg la wala du dëgg kon yii yëpp buñ nax suñ bopp bu ñu nax suñu bopp contexte yi du changé ku bëgg yàlla jaamu ji ko ku bëgg àjjana jaamul yàlla ku ragal safara jaamul yàlla ku bëgg àddina liggéeyil contexte yi du changé la dégg ngeen Serigne Cheikh wax ko ba tey mu ne lu ne dugg naa ci dégg ngeen mu wax ko ba tey mu ne lu ne dugg naa ci commerce mu ne sëñ Babacar si radiyallahu anhu foofu laay jeexalee jox mbokk mi mu ne sëñ Babacar si radiyallahu anhu nee dafa xëy rek xam ne toog amul njëriñ mu ñëw ne sëñ Seydi Hadji Malick dama bëgg a liggéey Maodo ne ko loo bëggoon mu ne ko commerce mu ne ko bu ko def commerce sub sëriñ da ngay summi sa mbubbu sëriñ mi teg fale nee na ma ne ko incha allah mu ne ma déparé Tiwaawoon jënd ay wagon def ko marchandise ñëwoon Ndakaaru jox ko yaay xaw ma naka fàtte naa tur ba ndaxte damay bañ a tudd lu ma xamul mu ne ma ñëw rek la ma Maodo waxoon ma tegge ko ma ñëw ne ko indi naa ay conteneur yi euh, bagaas euh, lijjantil ma ko mu ne ndekete commerce dafa am langage ma bàyyi ko fa jël langage u nee na ñëw ndaka ñëw fële ni ñu koy wax riceer rek jaaxal taalibe yi di ziar nee na ba ma war a ñibbi woolu ko mu ñëw ma ne ko sama sama commerce commerce bi noo ci def mbir ya ma waxoon nga lijjanti mu ne ko wallaay si lijjanti naa ko ba mu ne képp mu ne ko noo ko defee mu ne ko ku sa bàyyi daan jox rek jox naa ko mu ne sëñ Babacar ne laay laay tey ma dee di mu ne ko si ñëpp a kontaan ñi sa bàyyi daan jox ñëpp jox naa leen ah waaw moo ko ne lijjantil ma waxu ko jaayal ma te moom Maodo noonu la daan def ndekete woo soxna si jigéen gi sëñ Babacar wàccul yoon baal ma sama loxo yi de sëñ Babacar wàccul yoon ndax mu jigéen jooju moom la Seydi Hadji Malick daan jox ndekete sëri ca la ko Maodo daan jox mu séddaleel ko waa Ndakaaru moom it mu ñëw rek jox ko jigéen ji ne ko lijjantil ma ko jigéen ji dem génnee conteneur ba rek séddale ko ba mu jeex sëñ Babacar wala ñibbi Tiwaawoon ne ko fu bagage yi toll mu ne ko wallaay si lijjanti naa ko ku sa bàyyi daan jox rek jox naa ko mu ne ma rus koo wax dara ah, wax na dëgg di mu ne ko dëkk bi ñëpp a kontaan si ku sa bàyyi daan jox rek jox naa ko <laughs> xam nga ne Badara mi xam nga luy commerce ndax moom commerçant la sëñ Babacar ne maa ngi rusu rusu rusu rusu mu ne ma ñëw ci awoon rek sëgg mu ne ne Seydi Hadji Malick Maodo ne ma noo def ak njaay ma nee na ma sëgg rek mu ne ma bettuma woon de mu ne ma xam ne Maodo wax na dëgg mbubbum sëriñ mi laa summeekul ndax langage baa fa des mu ne ndekete marchandise dañ koy jaay waaye duñ ko lijjanti mu ne ma jékki-jékki ne Maodo léegi daal dama bëgg a dem Sokone mu ne ma incha allah tàllalal ma ñaanal nee na ma dem xalaat xalaat ñëw ne Sokone bi daal du baax nee na ma ñëw ne ko fomm naa yoonu sookoon bi mu ne ko tàllalal ma ñaanal la mu ne daf maa jippi bu yàgg <laughs> mu ne lu mu wax rek Maodo ne ko tàllalal ma ñaanal la mu ne mu ñëwaat ne ko dama bëgg dugg ci commerce xaw ma la mu ne ko tàllalal ma ñaanal la nee na ma xam ne Maodo jéppi na ma bu yàgg a ndax lu noonu la ñuy commercer mu ne ca laa bàyyi commerce dugg ci leneen Serigne Cheikh ne man mii ba ma ñëwee kazalika mu ne phosphate laa njëkkee Jurbel ubbi fa benn usine ñu jaxase ma ak Senghor ma ñëw ubbi benn Rufisque mu ne Taïba gii laa njëkk a dem di toj phosphate bi mu ne boo ñu fa fekkaan kenn mënul la wax nu ñuy mel mu ne sax lu jiitu loolu dama fa jóge ana magasa dugg ci taxi mu ne taxi bi dox ma dugg ma jaay taxi ba ñuy waaj a màgget gis nga xam na commerce mu ne dugg ci car rapide mu ne ba car rapide ya commencé màgget ma jaay leen dugg ci camion mu ne ba camion yi bëggee màgget ma jaay leen rek dugg ci phosphate bi mu ne ne sëñ Babacar gis naa phosphate fële ca Taïba mu ne sëñ Babacar ne ma indil suuf nee na mu jox ma suuf mu ñaan ca ne ma ku ko dàqu na béy amut alaaji Abdou Aziz bii laa ilaha illallah moo dàqoon na béy ci kaw suuf ba bi muy génn àddina biti gam yaa ngi fii ci Sandaga moo wax ci làmmeñam ma dégg mu ne sama oto bi essence su gouvernement mosu cee dugg lu ma ñaq rek mu ne essence su gouvernement mosu ci dugg lu ma ñaq rek laa daan jëndee essence te xam nga ne bu soxla woon essence su gouvernement ay bon yi bon yi bon moo ko fay fekk nañ nangoo liggéey waaye bu kenn xeb dara te wallaahi lu la nit liggéeyloo def ca sa àq ba bu ñëwee xolam sedd gis nga xol bu sedd boobu mooy tax nga am yeneen i sanc mooy tax mu barke xam nga lu nooy amee yeneen i sanc bu gisee ba dara gay ne ko jëlal xalifa xalifa ñang ku mën a karole la jël ko te ku sérieux la man tey benn mécanicien laa wóolu ci kaw suuf taalibe maam borom Touba la benn mécanicien laa wóolu ci kaw suuf tey moom moom yaakaar naa ne sax moo dàq liggéey oto tubaab yi te wallahi dëgg la muy Assane Assane Ndour mu ngi fii Parcelles Assainies ci wetu kaas bi ci wetu tigo bi mosuma gis ku sérieux ni moom Badara billahi wal kitaabi mosuma gis ku sérieux ni ñoom moom weccet sax bu desee daf koy denc ne la lii moo ci des te ba mu jënd pièce bi yëgu ko te daf ko waxaale weccet bu desee ci lim waxaale daf la naan lii moo de nangam la doon jar waaye dama waxaale lii moo ci des loolu fu ngeen ko dégg lu demoonte ci sa oto yi dana ko teg ba nga ñëw mu ne la mu ngi nii su ko mënee defar danaan la mën naa ko su ko mënut daf la naan mënuma ko waaye diw mën na ko xoolal bii sérieux man de moom dong laa gëm comme mécanicien man man yàlla na fi yàgg nag te ndax xam naa ne bu ko dara def cee ma ma tarsu ndax lu xew ci samay oto dama naan leen yóbbu leen ko ci Assane Assane Ndour fi mu ne nii sax ko wax rek dama man pour man Assane rek am ci àddina bi yàlla xam na ko ndax njubam mais njub mooy marketing bi njëkk boo xesee jub am nga marketing bu dëgër ku la ñaanal nga dem waaye boo dëngee laa ilaha illallah boo jubee imam yusuf mu ne wuu maa ngi ñëw dafa am fu ma fuñ ma yónni waa jàkka jee ma yónni te fekk waa jàkka ji yónni wuñ ko sa njubadi lay daw mais jubadi amul amul njëriñ jarga sow bii ma tuddee xadara bi dégg moo daan moo benn xaritam moo daan wax jarga ne ko booy si normal loo ko jëndee jar na ko muy baat bu gàtt normal mu ne ko normal loo ko jëndee jar na ko normal mooy njub rek njub loo ko jëndee jar na ko na ñu jub mécanicien bi na jub mason bi na jub caroleur bi na jub bureaucrate bureaucrate bi na jub enseignant bi ñu jub policier bi na jub gendarme bi na jub ñëpp nañ jub suñ jubee rek jàmm am njub rek moo ñu ci mën a génne buñ jubee rek jàmm am jogon silla bii yal na ko yàlla yërëm bi ñu daan bi ma daan defaral ay dàll moo ma ko nettali ci gémmiñam te mën naa ne ci sama loxo la mujj di taalibe Serigne Cheikh nee na kër jëmb la Serigne Cheikh toog di conférence mu ne boobu askanu askanu wuude maa ci dàq defar dàll te wax na dëgg mu ne waaye dàll wu ma mës defar moom boo ko solee semaine moo gën a bon yu chinois yi semaine nga sànni ko mu ne ma dem kër jëmb Serigne Cheikh di def conférence di wax ci wàllu métier yi mu ne ba yegg ci ne xanaa xamuloo wuude wii defar dàll nee na te di ma xoolaale na nee nii la defaloon yi ma ne kii xanaa dañ ko wax te wallaay mu ne ba ci wuude wii defar dàll téeméeri dàll peeri dàll par jour nee na te billaahi booba téeméeri peer laay defar par jour jokoon moom ay nett bi mu ne booba téeméeri peer cent peer laay defar par jour waaw kay mu ne ma te boo ci sol semaine mu yàqu mu ne Serigne Cheikh ne ma nii rek ne wuude bii defar dàll tey defar téeméeri peere dàll par jour te boo ci sol semaine sànni ko mën naa ñàkk mën naa ñàkk nee na ma ne yii kii man lay wax waaye tey moo xam ne ku am jom la nee ne ma ñibbisi soppi lépp mujj gi dàll bu mu la defaral daf la naan xam nga lu muy bañ teg ci taal man daal lii ma mujj defaral dama ko denc pour archive ba léegi maa ngi ko denc ndax bëgguma mu yàqu ma di ko ko xoolee daf lay wax ne bu la defaralee dàll ba jox la daf la naan teg ci taal lay bañ ndox du ko yàq dara du ko yàq da ngay dox ba maye mu ne te Serigne Cheikh a waaye sëriñ Cheikh fay na ko bor ba nee na dama jékki-jékki rek mosuma xam ne sax sëriñ Cheikh xam na ma mu ne ma jékki-jékki rek gis oto bu gaare mu ne Serigne Cheikh a ngi wàcc sol benn deux pièces bu yem nee na ma naan moom la wala du moom nee na ba ni dagaj ci sama biir kantin bi ni ma jogoon silla la nanga def mu ne maa ngi tiite tiite tiite tiite tiit ma ne ko maa ngi fe rek mu ne ma wallaay wallaay tabarkal la tabarkal dama laa seet si woon rek ndax yàgg nga ma may dàll te xamoo ma ma ne naa ñëw seet si la tabarkal la tabarkal la jox ma paaka bi ngaa liggéeyee ma ñaanal la ci nee na ma jox ko paaka bi rek jóg dugg eh, topp bitig yi wàccel ma keesi ko ko gaawal dama am gan dem ci beneen wàccel ma keesi fanta dama am gan wàccel ma eh, sprite dama am gan nee na di wër bitig yi ba ñëw fekk Serigne Cheikh dem <laughs> waaw wallaay ndeysaan mu ne ma ñëw fekk sëñ Cheikh dem xam nga sëñ Cheikh ko am fayda la xam na ne jogoon daf koy woowal nit ñi te bëggul ko ko fa fekk nee na ma yëkkati sama sajaada rek fekk fa ñaareel liyaas nee na ma xool benn bu ñetti di un million muy deux million ci jamono boobu nee na ma ne deux millions yi de neex na waaye gisoon Serigne Cheikh mii ma teg ko sama bët bi mu ne mës te wóor na ma yow mal xiyaam laa koy giseeti te wax na dëgg keroog la ko gëj a gis keroog la nga gis Serigne Cheikh xoolal kii ni mu mënee njaboot ak fi Serigne Cheikh toll ci yàlla te boo demoon Medina jogoon moo fa gën a ñaaw palaas li ma lay wax nii du caaxaan ne place moo fa gën a ñaaw waaye moo fa daq defar daal moo gën a ñaaw place eh, booba waaye moo fa gën a daq defar daal jogoon si la yal na ko yàlla dolli leer daf ma daan wax ñaari gàmm rek lay dem gàmm Serigne Cheikh ak sa gàmm. sama gàmm la mujjee ndeysaan kon ba léegi kaset yi bu ma koy seetaan ndeysaan bu ci mujj fii la ma fekk ci kër gi jox ma ay dàll dama yëg nga ne sa gàmm man ko loolu xam naa ko mu ne ma sa gàmm gàmmu Serigne Cheikh rek laay dem bu ñëwee day nëbbatu caméra yi pour buñ ko jël moom laa leen doon wax fii ne koo gis rek bàyyi ko xel ku ñëwoon seet si ko daf daan ñëw gaañu na sax fan yi ndeysaan ah jullit la naan danaa wax rek yal na ko yàlla yërëm waaye duma ci sori moom waa jooju du tudd turam dafa ñëw ci palaasu jogon fekk imam Moussa ngi toog ku weddi li may wax demal nga laaj imam Moussa imam Moussa yegsi rek waa ji yegsi dañ ko eh waaw yow imam damay dégg rek ngeen di waaraate waaye yéen ngeen yàlla waaye kuy yàlla yàlla am na imaam Moussa bëgg a tontu jogoon ne ko Moïse Moïse rek la daan wax imaam Moussa ne Moïse bu ko tontu kii wuyu la bàyyil ma tontu ko man mi jàngul dara bàyyil ma tontu jogoon jàngul alif jàngul baa jàngul a jàngul bee dara jàng ko lu mu julee daal xam na ko boo ñëwaan sax ne ko jogoon luy sa numéro téléphone danaa la xoolal calendrier boobu ci kaw lañ ca bind loolu la mënu te tudd chiffres yi mënu ko tudd 77 ak yooyu mënu ko tudd dafa la naa xoolal calendrier bi nga xool mu ne la loola ca kaw mooy sama numéro jeex na mu ne ko Moïse bàyyil ma tontu ko kii woyu la maa ko mën a tontu ne ko yàlla ngay laaj mooy kan mu ko mu ne ko boo njambalee seetal baat bi mu indi xam ngeen njambale xamu leen ko ma wax leen xam ngeen ah waaw kay kon baax ah dama bëggoon rek su ngeen ko xamul ma wax leen xëy na ñi may seetaan extérieur te xamuñ njàmbale mooy ku biiram di daw te mënatul a téye dem cabinet yi loolu mooy njàmbale waa ji ne pat mu ne ko boo njambalee ba dugg ci douche bi bëggoo ndey fekk la fa bëggoo baay fekk la fa bëggoo jabar fekk la fa bëggoo doom fekk la fa bëggoo xarit fekk la fa kala fekk nal la ba raxasu génn koo yàlla waa ji teg mu ne ko naa la boo fi nekkoon naan ko xaala laahu xaala rasul wax ji day bari waaye bii dem rek waa ji jóg ne bëri teg te loolu mooy dëgg ne ko kala fekk nal la ba nga set nga raxasu génn koo koy yàlla tawxiid boobu mësuma ko gis ba ma ah. juddoo ba tey mësuma ko dégg jogoon baat boobu bu ko ko yàlla fayee rek mu dem àjjana hmm. billaahi wal bi moo tax waa ji bu ma ko gisaan ci làmb ji dama koy xool ni ne wayu baa ngi nii na léegi nag yal ko yàlla kii rek hmm. ah ku wax loolu noo ko mën a atte xëy na balaa moo dee tuub na ko moo tax wax bu garaaw baaxut te jullit la pourtant ah nee na jullit la mais jullit buy toog naan est-ce que yàlla am na est-ce que njullitam wér na moo tax beew baaxut te foo mujj rek ci suuf rek dem na ja ñun ñëpp nañ bàyyi woon ci xel rek ngeen baal màq nañ bàyyi woon ci xel waaw ñun ñëpp nañ bàyyi woon ci xel nañ bàyyi woon ci xel àddina am na solo dañ naan amul solo waaye am na solo ndax li ñuy yóbbu na fii lañ koy liggéeyee li ñuy yóbbu safara yit fii lañ koy jëfee kon am na solo mais niñ jéem am solo ñun waaw moo tax sëñ Babacar Si radiyallahu anhu Cheikhul Hadj Abdou Aziz nee na dafa am bés rek mu dégg baat bu ko naqari mooy koo ci nuyu rek salaamaaleykum na nga def mu ne maa ngi ñàkk solo rek mu ne sëñ Babacar xii rek woo leen ne leen lu may dégg jullit bu amul solo kuy am solo bu ma fi diggati maa ngi ñàkk solo jullit bu amul solo kuy am solo taalibe tijaan bu amul solo kuy am solo koo ci nuyu mu naan la maa ngi ñàkk solo rek yéen a ñàkk solo waaye tarixa bi ak islam bi ñàkkul solo bu ma ko fi déggati seetal jubbanti boobu yéen sàmbar ci seen kaw ci benn baat boobu rek maa ngi fi di ñàkk solo ci ngay dem ba na sax xamoo baat bi dalay lay topp ci ngay dem ba boo bëggee jóg doxi soxla sax ne ah matatu ko de naa toog ba Mansour ñëw ma yónni ko te yaa ko war a doxal sa bopp voilà nañ am itte waaye nañ nangoo liggéey nañ nangoo jaamu yàlla imal fi dunya ka annaka taisu abadan wa amal lil axirati moto tamutu gaddan waaw saai sallam nee liggéeyal ba mel ni doo dee àddinaay sa kër ndax xam valeuru liggéey mu ne waaye jaamul yàlla ba mel ni ëllëg ngay dee ndax bañ a wóolu pexem yàlla ñaar yi nga boole ko nag mu ne sooy dund sa kawar di ñuul nel yàlla mën na maa lakk ëllëg ca safara ndax say jëfa mu ne waaye boo demee ba gis bejjaaw mu ne neel yàlla yërmandeem ëpp na di ma dugal safara wa rahmati wasiat kulla shay'in ilman mu ne nga jiital boobu nag mu ne waaye fekk sa kawar a ngi ñuul neel yàlla mën na maa duma bul wóolu pexeem yàlla mu ne waaye boo gisee bejjaaw ci sa bopp bi neel yàlla yërmandeem ëpp na nag di ma duma wa rahmati wasi'at kulla shay'in ilman yàlla ne sama yërmande ëpp na lu ngeen xalaat ci kaw suuf waaw ñu jiital bu boobaa nag del jiital yërmande yàlla ci sa kaw ndax yàlla ëppante nag ñun ñuy sujjóota ko rukkoo ba jóg mu di ñu yóbbu safara laal yàlla ëppante nag loolu nag waaw wax dëgg yàlla